ahousu billahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim barkeb sëriñ fàllu mbokki murid yi mbokki jullit yi yee ñuy safoo saa su nekk Daaru Bairé Fall TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ku xool barab bi ñu nekk xam ni tey ñi ngi fii si jannatul maxwa jannatul maxwa nag buñ ko waxee mooy barab bii nga xamante ni kuñ naan xalifa général des Baye Fall muy sëñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Menda fii la nekk fii lay toggee ndogu muy ndogom yu njëkk nag gannaaw bi nga xamante ne doon na ki nga xamante ne mooy Cheikh Baay faale yi di fi daje fu waay toggee ndogu indi ko fii xalifa bi gis ko ñaanal leen jox leen digal ñu yóbbul ko ki nga xam mooy Serigne Touba. boobaak léegi nag tey di ñeenteelu fanu koor ànd nañoo ak yéen wan leen liggéey bi fa mu tàmbalee benn fan ba ñaari fan. noonu la ñuy ànd ak yéen ci weer bi yëpp fépp foo xamante ni nii ña ngi fay toggee ndogu si njabootu Cheikh Rafal gi Daaru Baay Rafal TV dana fa ànd ak yéen dem wan leen la nga xamante ne moo fa xew danañ dem sax ba njaareem fépp foo xamante ne daal booli Cheikh Rafal yi dana fa dem waa Daaru Baay Rafal TV dana ànd ak yéen wan leen la nga xamante ni noonu la liggéey bi di demee kon ñu ànd ak yéen tàbbi ci biir liggéey bi wan leen tey si ñeenteelu bis bii nga xamante ne mooy si weeru koor bi li nga xamante ne moo xew fii si Jannatul Mahwa jërë ngeen jëf la la la la la la Seigneur. لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله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 la ilaha illallah jigéen ñi. mag ñi ak ndaw ñi. mag ñi ak ndaw ñi. di leen sant bu baax. di leen sant bu baax. di leen gërëm bu mi ngi xamal ni ñu sëriñ bi nee na xolam sedd na bu baax ci liggéey bi. nii ñu ko tàmbalee rek. nii ñu ko tàmbalee rek. dal na am xelam. dal am xelam. mi ngi ñaan ci darajay maamam. mi ngi ñaan ci darajay maamam. liggéey bi àgg ak jàmm. liggéey bi ak ak jàmm. ca bañ a am menn ndok. ca bañ am menn ndok. Ah, mi ngi santaane nag. nee mi ngi santaane nag. ñu fiddili sunu taalibe. ñu fiddili sunu taalibe. ak sunu yar. ak suñuy teggin. rawatina nag. rawatina nag. góor ñi nga xam ni. góor ñi nga xam ni. ñooy ànd ak oto yi. ñooy ànd ak oto yi. di yóbbu liggéey bi. nan dolli yar bi. nan dolli yar bi. ak teggin yi. ak teggin yi. ndax luñ ci am rek doyul. ndax mooy suñu alal. ndax mooy suñu alal. loolu rek la ñuy loolu rek la ñuy xool ci ñun de. foofu lu ñu fa yóbbu. a yóbbu. lu dul ab yar ak teggin. lu dul ab yar ak teggin. waaye dina fa yóbbu lu kopp de. waaye yar bi nga am teggin yi nag. waaye yar nga xam ne moom lañ am ak teggin yi. kenn amu ko kenn amu ko. yéen rek ko am de. kon fi di leen laxasaay bu baax. oto yi itam. oto yi ñuy romb. ñi ñuy romb. nañ may jéem orma rek. nañ leen di may orma rek. xam ne ku ci am doole. ak amul doole. ñëpp bokk yéene ji. waaye bu ñu leen won ni leen. waaye bu ñu leen won ni leen. lii ñu man mënu leen ko. lii ñu man mënu leen ko. baa li ñuy def defu leen ko. xëy na ndigal li daa jaar fii rek. xëy na ndigal li daa jaar fii rek. muy sunu cër. ñu di ko def waaye ñun ñëpp ko bokk de liggéey Sëriñ Tuubaa moom la war kon nañ boole yar ak teggin yi di def ndànk rek dem ak jàmm ñëw ak jàmm ñu góorgóorlu nag bu baax a baax ca soppante. ca ànd yeneen jàmm. ca ànd yeneen te jàmm. ca fas yéene da wuti sëriñ bi rek. wëcc àdduna mi nga xam ni. dañuy xëcc. di jëme ci loo xam ni. di jëme ci loo xam loraange rek la. waaye fi ni jëriñoo moom. mooy fi ngeen nekk rek. mooy fi muy sëriñ bi rek. lu waay am lu dul lii. saay saay dina ko am ni yow. baa mu ëppale la ko. waaye li ngeen am. du alali saay saay. alali kun dimbali la. nit ku baax nag buñ ko dimbalee. da koy xam téye ko bu baax. sàmm ko bu baax a baax a baax. te bañ koo fooyee nag. te bañ koo fooyee nag. kon nee jërë ngeen jëf. sëñ baa ngi ñaan ngeen dem ak jàmm. ñëwaat ak jàmm. Cheikh Moustapha Fall. Cheikh Moustapha Fall. yaag sëñ Ablaye faal Ndar. sëñ baa ngi leen di soññ ci liggéey bi ci ñi ngeen àndal rek xam naa lu ñuy def day njaboot gi rek lay doon waaye buñ leen toppee waaye bëgg rek ngeen di def waaye da ci am ñoo xam dañu ngi indi fii ak jàmbat ci sëriñ bi xamul lool nag fu mu ko waaye yéen jógewul ci waaye nan doole yar bi ak teegi di bàyyi faal ca sëfoor si ni àndal ak ndaw yi ni àndal. bañ a boddi kenn. bañ a boddi kenn. bañ a jànni kenn. bañ a saaga kenn. bañ a xuloo ak kenn. yoon wi daal du yoon xuloo. du yoonu saaga. du yoon xeex. yoon yoonu jub la. ak yoonu ndigal. yéen ci ndigal ngeen ne. seytaane nag boo ci bëggee mucc. seytaane da dem fa mu tuxoo. nga dëkk foofa. waaye boo demee fa seytaane dëkk. du neex a mucc de. fa mu tuxoo nag. fa mu tuxoo nag. mooy ndigal. mooy ndigal. lu ndigal nekk rek. lu ndigal nekk rek. seytaane génn na ci loolu. kon nañ leen dem fa seytaane tuxoon ñu sanc fa. te bàyyi ko këram. këram nag mooy mer. këram nag mooy mer. ak werante. ak saaga. ak ñàkk yéenante jàmm. ak ñàkk ànd. loolu lépp buntu kër seytaane la. dañ koy may buntu. buñ ko ko may nag Baay Faal. nañ leen daw làqutu ci sëriñ bi. sëñ bi moom buñ fa nekkee. seytaane du nu mënal dara. waaye buñ génnee dem nag. ndog mun dajeel. ñoo ko teg suñu bopp. waaye nan da wuti sëriñ bi rek. kon nee jërë ngeen jëf. liggéey bi itam liggéey bi itam. teel gi wàññiwu ci dara. waaye 4 heures nag. doy na ab yàq. toggatuñu ay reer. toggatuñu ay reer. bu njëkk ba ñuy doog a tàmbali liggéey bi. bu njëkk ba ñuy doog a tàmbali liggéey bi. liñ fi fekk ñun gone yi. dañ daan taal midi. dañ daan taal midi. di yàq quatre heures. di yàq quatre heures. di yenu cinq heures. te léegi mbas mi. te léegi mbas mi. wàññiku na. mbas mi moo ko gàttaloon lool nag. ngir wàññi mbooloo mi. bañ di guddee. bañ di guddee. muy teel. waaye liggéey bu toll nii. waaye liggéey bu toll nii. boo ko liggéeyee ci lu lu ak leer. lu boo ko liggéeyee ci lu ak leer. mën naa am na nga ko bëggee doo ko ne amee. waaye yeewu 5 heures taal. baa ngay taal 6 heures. mën ngaa noppi midi. te loolu ab añ lay doon rek. waaye bu taalee midi waaye bu taalee midi ba 11 heures. mën nan bu 4 heures ñu yàq. bu 5 heures ñu yéen a booli. du tax ñu guddee de. loolu moom. dañ koy ñaan mbooloo mi dañ koy ñaan mbooloo mi ndax kilifa yi am nañ ci wàll te ñoo ko war a taxawu si di ko xoolal sëriñ bi nag waaye am na ci jamono yoo xam ne kat seenu ñëw ko dana diis lool ci taalibe yi leen xool na buñ ko fekkaliwu itam du tee liggéey bi dem moom waaye fekk gi nag day dal sunum xel dolli sunu yaakaar ñun kon nee jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf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 إله إلا الله فلا إله fa la la mbokk yi lii la leen indiloon subaak léegi jóge fi nga xamante ni mooy jannatul maxwa ca kër Cheikh Ibra Fall gi si Serigne di Fall moom Serigne Modou Menda yàlla fi yàgg lool te wér ànd ak yéen wan leen convoi bi ni ñu doxalee ci yoon bi ba ni ñu agsee fi nga xamante ni mooy résidence Khadim Rasoul fii nga xamante ni fi la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké nekk yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér. gis ngeen gannaaw gi Baye Fall yëkkati bool yi def ay pàcc yu bari jëm fi nga xamante ni mooy kër doomi Serigne Touba yi kër gu nekk Baye Fall bi dana fa yóbbu li nga xamante ni mooy bool waaye ànd koog li nga xamante ni mooy turu yàlla bi am na yeneen yoo xam ne itam ñi ngi si biir yoo xamante ni Serigne bi moo koy séddaleel boppam boo tàbbee si résidence bi di nga gis ay nit ñoo xamante ni ñii indi nañ seeni soo ñii indi seeni bool nekk ñoo xamante ne ay néew ju doole lañ kon lii lañ leen indi loon si bisu tey bii di ñeenteelu fanu si li nga xamante ni mooy ndogu Baye Fall yi kon nii lañ koy ànd ak yéen ni ma ko waxee sànq rek ba weer wi dee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf